Oui, je dis l'assainissement, c'est la chose qu'on voit le moins, parce que c'est intérêt. C'est la chose dont on parle quand on est inondé en général. Et c'est la chose qui est essentielle. Et qui, c'est la chose aussi qui est très chère, elle est très coûteuse. C'est des milliards. Nos communes n'ont pas les moyens de faire face aux travaux d'assainissement. Je crois que c'est le lieu pour nous euh, d'interpeller les populations encore, leur habitude, leur façon de faire pour dire qu'en cas de problème sur l'assainissement, il faut des milliards. Et s'il faut des milliards, il faut faire appel à l'État. L'État n'a pas que notre commune seulement à gérer. C'est 557 communes que l'État du Sénégal gère. Si on quitte Dalifort, il serait bon qu'on reste au moins 25 ans sans revenir pour ces questions d'assainissement. Donc ce qui reste, l'État a fait ce qu'il a fait, et ce qu'il avait à faire. Je crois que les populations maintenant ont affaire par leur comportement, par l'attention. Parce que le fait de dire que allez nous bourre, c'est-à-dire c'est le, un bien commun, je m'en occupe pas, je crois que c'est une faute très grave. On doit s'occuper plus du bien commun que du bien personnel. Et c'est cet appel que je veux lancer. On peut faire des, des, avoir de mauvais comportements ici, mais ça se répercute à un kilomètre. Et ils vont en souffrir. Donc c'est général. Qu'aucun concitoyen ne doit pas regarder son, son concitoyen faire ce qu'il ne doit pas faire. Je dis qu'on doit être les premiers policiers, les premiers gardiens, au niveau où on se situe, dans notre quartier, dans nos maisons, pour veiller. On ne peut pas. Parce que la question de l'assainissement, c'est à l'intérieur. Ce qu'on met ici, ce n'est pas là que ça va bouger. Ça va bouger de l'autre côté. Donc celui qui est là, qui voit ce qu'on est en train de faire, il doit se battre. Il doit, même, doit être prêt à empoigner la personne qui est en train de le faire. Jusqu'à ce qu'on aille à la justice, qu'on aille à la police pour qu'on nous départage. C'est ça que moi je demande. Parce qu'on a vu dans certains quartiers où euh, <laughs> chaque année, il y a des réseaux qui sont bouchés. Et ONAS vient chaque année pour déboucher. Mais est-ce qu'ils viendront encore après un an est-ce qu'ils viendront pour faire après Donc, ce que je demande aux populations, c'est que le réseau nous appartient, nous sommes les bénéficiaires, l'État ne reviendra pas d'ici peu ici, l'État doit aller voir d'autres communes. L'argent, ce n'est pas pour nous seulement. Et ce qui a été fait ici, on doit vraiment l'utiliser à bon escient. ah di population aussi li des du Sénégal il y a indi réseau indi nañu li milliard de ay milliards de jox te commune suñu jëlee si commune yi ko soxla yëpp war na mat ay 400 communes suñu demee Jarifoor am lii waa Dalifoor war nañu wane ni ñoom dañ ko mérité lañ dañ koy mérité mooy comportement mooy taxawaay bu ñuy am si euh, si kii bi ni mu tëddi si si réseau bi ni ñu koy aaree ni ñu siy bayee xel ñu bay di naan alalu buur la wala yëfu buur la yëfu buur moo ñu war a gënal ñu yëfu bokk ndax yëfu buur ñoo ko bokk ñu ñu bokk bokk loo bokk sa moroom nag da ko war a gën a sàmm li sa bopp donc li may wax nit ñi assainissement dafa dafa jafe assainissement dafa dafa cher du fi yàquut si balaa ngay ñew ñu koy defaraat day ay milliards la municipalité amul moyen di génne milliards ci assainissement ci état bi la ñuy demaat état amna na yeneen priorité nga xamné dafa wara démat encore yeneen commune ñam li nga xamné ñun ñam nañ ko donc nañu bay xel xamné fi fii ñaar fukki ak ak juróom waruñu fi nek di xaaraat état mu ñëwaat ci réseau au moins donc loolu dama koy ñaan population quartier bu nek conseil de quartier yi jóg ñuy xool parce que loo fi def si réseau bi saboté ko fii du fii lay amee dina dem ba beneen quartier bi lay beneen quartier lay feeñee moo tax ñu ñaan nit ñi ku si nekk nga xam ne yaa ko moom yëf ñoo ko bokk ku nekk sàmm ko di leen gë sant di leen merci beaucoup. ñun waa Cité Soleil dañu kontaan ci président Macky Sall ndax ndox mi nag wax dëgg yàlla daf ñu sonaloon torop torop suñuy moroom yi bari jaay seeni kër ñun bu ñuy génn cité bi ay bot lañ daan sol di xuus di xuus ba génn ka taliba jël bot yi bokk sunu saak yi saak yu ngand lañ daan yor président Macky Sall si fii Dalifort honorable député Awa indi ko fi Macky Sall ne ci ta Soleil gis na len suma jele rew mi ñumay jëk defaral si ngeen di bok bobu jamono ndox ma ak ñu yam suñu deñ yi bobu jamono suñu doom dañ leen di denkané waaye bo duggé ci cité bi de xam nga né amna lu mu fi def dé kon ñun duñu def lu du gërëm Macky Sall di ko ñaanal té nak suñu bir xol yi lañ ko dugal te Cité Soleil bo leen xoolee Cité Soleil ngeen xamni ay gor pire fi dëkk ñun de moom lan àndal ndax moo nu dig moo nu ko def ñu dund fi ay at nag di nuur cim ndox di togg ci kaw ci ci ci kaw yi lal di togg ci kawi taabal di xuus man maay numéro un bod yi sama kër lañ ko daan dénkaane ma rot sa tala ndox yi teg bari na fi borom kër yoo xam ne bii danoo jooy seen kër yi ba génn àddina kon nag bu lëg lekkee alal na ko gërëmee coy donc ñu ngi sant bu baax a baax monsieur le président de la république ci ci liggéey bi nga xamante ne moom la def fii parce que ku xool li xam ne xaas bi bëri moo ko liggéey kon lii du budget boo xamante ne waa ji nekk fële nee na moom moo ko liggéey kon xam na ne moom day nax boppam bu ñu jógee ci loolu ñu ngi sant bu baax a baax sunu honorable député Awa Niang mi nga xamante ne nee naa leen moom moo ñu fekk waa Dalifort ñuy nelaw mu yeeñu ne leen jóg leen ñu defar Dalifort kon ñu ngi sant bu baax a baax honorable député Awa Niang ci liggéey bi nga xam ne moom la ànd ak waa Dalifort ànd koog président Macky wax kon tey président vraiment ñu ngi wax contane nañu bu baax a baax ci ni nga taxawoo population bu Dalifort. di wax ne le maire bi nga xamante ne moo taxaw fii sànq di inaugurer li nga xamante ne moom mooy euh, ouvrage yi bi ñuy ñëw fii di teg pose premier pierre ñëwul woon mi ngi woon à l'intérieur de ce pays di teg ay mouvement xalifa président au moment où Dalifort avait besoin tay nag la affaire yi sotti assainissement am ñu war a inauguré ñu gis ko fii nga xamante ne mooy ci lieu bi mu ñëw yëkkati làmmiñam di wax ne mi ngi sant mi ngi gërëm te li muy gërëm dara baaxu ci ndax dara yeggu ci suñu gisee ki nga xamante ne mooy honorable député Awa mi ngi dugg ci réseau yi di wax c'est parce que Gagny Sakho mayu ko nopp bu mu xamantene mën wax li nga xamantene mo xew ci Dalifort mm. tout le monde dise ñu bëri ñu ngi wax da fay politique xàmmewul ñaari pouvoir yi ak ah kañ xamé nako ko xamna lu législatif ak lu législatif parce que mi ngi ci bëgg a def na ci deux mandats et que ñu ngi dénoncer l'incompétence de Gagny Sakho Gagny Sakho ingrata à Dalifort dégage merci beaucoup